bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Sud FM seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee Riyaadu Saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër démb ñoo ngi woon ci euh, sunu ñeenteelu bind tey war a nekk juróomeel ñeenteelu bind bi ñoo ngi woon ci mottuli buntub ñetti téeméer ak juróom bi aaye mbiru sculpteur seen jig seen liggéey bu fekkee ne lu am ruux la ñuy sculpter maanaam yettkat yi démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci addisu xaj boobu duggoon kër yonent bi te yëgu ko muy addis seize quatre-vingt-quinze wala junneeg juróom-benn téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom jële ko ci sunu yaay Aïcha mu ne yonent ba daa joxante woon rendez-vous mook Jibril te xam ngeen ne Jibril mooy kilifa ak malaaka yi rendez bi jot Jibril ñëwut dix la ko joxoon rendez-vous il est dix ñëwut ah mi ngi yoroon aw yat moom yonent bi mu sànni yat wa daal ne yàlla day akub yonentam du ñu foo si daal gestu rek gis kuti ab kuti xaj bu ndaw rek mu daan ne mata daxala haazal kalb xaj bii kañ la fi dugg Aysa ne ko wallahi maa daraytu bi yëguma ko xawma kañ la fi dugg ne su ma yëgoon ne kañ la fi dugg danaa ko génne wala su ma yëgoon dana fi dugg du fi du fi dugg fa amara bihi fa uxrij mu joxe ndigal na na xaj bi génn saaba yaag ña fa nekkoon ñëpp jàpp ca ba xaj ba génn kër ga fa jaahu jibril jibril na cëb xaj bi daal daa génn rek jibril aksi fa xaala rasulullah waatani fa jalastu laka walam taati nii joxante nañ rendez-vous ba léegi maa ngi toog ñëwoo fa xaala jibril na ko manaani l kalbu allazi kaana fi baytika wa inna laa nadxulu baytan fii kalbun wala suura rawaahu muslim mu ne ko xaj boobu ngeen génne de moo ma teewoon a dugg li feeg min ci kër gi du ma fi dugg ñun dañoo ragal xaj siqu nu moom dara ah mu ne ko waaw ne ko nun nun malaaka yi yor wàllu yërmande yor dossier ak document yi jëm ci yéen dun dugg ci kër gu am xaj duñ dugg ci kër gu am monument waaw moo tax mbokk yi yooyu ci sunu kër yi nun dañoo bëgg tubaab yi si sunu kër ba luñ gis tubaab def ko rek ñu def ko sunu kër yi nanuy laaj lislaam sunu kër nu mu war a mel incha allah am na waxtaan wuñ leen di préparer wu jëm ci eh, kayfa nabni baytan nu nuy nu nuy nu sunu kër yi war a mel waaw waaye daal sunu kër yi war a mel ni kërug tubaab boo ñëw ci buntu kër gi fekk ñu def ñu desin fa xaj walla am muus wala ñu yett fa ak gaynde wala yu demee ni yooyu nga dugg ci biir armaal bi bayee bi tabarkalla kaw taabal ji lépp ay muus ay kalboog ay sikkóor ay jaxaak ay gaynde nga xool tabarakallahu rido yi fi nekk rido yi fas loolu ñu def ko fa waaw tabarkalla loolu moo teewoon kon Jibril dugg ci kër gi mooy xaj ba fa nekk ñu jële ci abul hayyaaj xayaan ibnu xuseyn qaal qaala lii ali ibnu abi taalibin alaa abxaduka ala ma baasani alayhi rasulullah eh, abul hayyaaj xayaan ibnu xuseyn dafa mas a toog ak Seydina Ali bu benn jamono Seydina Ali ne ko doo ñëw ma yónni la yónant ba ma yónant ba yónni woon doo ñëw ma doxloo la mis mission bu ma doxloo woon ko acca mu ne an laa tadaa suratan illa tamastaha boo jógee fii mu ne ah, mu ne romb foo romb euh, ab monument rek tojal foo romb dessin buñ def ci miir peinture ko maasale ko wala xabran mushrifan illa sawayta foo romb tam bàmmeel buñ jël bam na jëng ca kaw maasaleel yii daal laa la bëgg yónni waa naa la ko doxal nanga ko doxale woon yonent ba <laughs> waaye te te ku ñu woon Dakar tabarkàlla yor su potu peinture wala sa sa sa kiwu peinture nu ñu koy waxee euh, sa bërigo peinture waaw oustaz Aboubacrine Faye oustaz Aboubacrine Seck yëmbal ku ñëwoon Sénégal gi yor bërigo bërigo peinture di peinture yi ñu yi ñu yi ñu dessin ci mur yi te ñu am roox doy na doy na sëkk liggéey waaw 2014 bi dana jeex te doo jeexal waaye daal aliyu nee walla wala alhayaaj ibnu xiyaanal ibnu xuseyn huseyn bi sodd nee na ko aliyu nee na ko kaay ma doxloo la mission ba mu yonent bi doxloo woon mu ni ko acc mu ne foo seen luñ desee rek maasaleel foo seen xabru buñ jël ba mu kawee rek maasaleel acca demal loolu la ko joxoon rawaahu muslim rawaahu muslim <laughs> seetetetet ma ñëw ci beneen buntu muy buntu trois cent six maa ngi ci benn kitaab bu ñuy wax kitaabu yi tere kitaab muy buntu boo xam ne bii yi ñu tere la ci imam Nawawi yi boole mu ngi ñëwaat ci jeneen tere mooy taxrimu tigaasil kalbi illa li saydin aw machiya aw zara mu ne bunt bii da ciy dajale araamal guñ araamal yar xaj su fekkee rëbb bu taxut walla sàmmuk jur bu ñaar yooyu taxut rekk yar xaj xaraam rëbb mbaa sàmmuk jur bu ñaar yi taxee rek dagan na bu ñaar yi taxul nag nga xam ne dangaa am filingu am ko wala nga filingu di ko uuf fooy tukki yor ko fa amul njariñ tabarakallahu <laughs> rek yu bu dee yooyu baaxut ibnu umar moonu nettali mu ne ma niqtana kalban illa kalba saydin aw maasiyatin fa innahu yanqus min ajrihi kulla yawmin xiiraataani wa fi riwaaya xiiraat muttafaqun alayhi ibnu amar nee na dégg na ci yonente bi sallallahu alayhi wax ne képp ko am ab xaj yar ko te rëbb bu taxut sàmm jur gi taxut rëbb bu taxut sàmm jur gi taxut da nga am rek filimu yar xaj nga di ko nga di ko yar nee na bët bu set xaj bu wàññi ci say tuyaaba benn xiraat wala xiraataani luy xiraat xiraat mi ngi toll ni jabalu uhud ñi dem màkk xam nañ jabalu uhud boobu nit ñi yéeg ba muy ba muy maasaloo léegi montagne mooma képp ku yar ab xaj te bu taxut wala sàmm jur danga nga koy yar rek comme sa bët bu set yëgal ne say tuyaaba wàññi na ci lu toll noonu waaw say tuyaaba wàññi na ci lu toll noonu ndax saa bu ne mbaw ci koñ bi ñëpp ay wax noo su booxun kii su booxun kii gi mooy yow mi ko fa indi léeg-léeg nga gis ñu ngàbb ca derga di wëndeelu ci mbedd mi tabarkalla muy tiital xale yeeg mag yi rekk la ala kulli xaal noonu la ko yonent bi teree su fekkee rëbb ba tax nag walla sàmm jur gi garde jur gi su boobaa amul problème incha allah ndax daf caa doole illa illa kalba saydin ñu jële ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente ba nee na man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiraat qiraatun illa kalbu xarsin aw maashiya muttafaqun alayh mu ku ngëb ab xaj ci sa kër bët bu set yàqal na la tuyaaba jutal ni jabalu uhud bu fekkee yaroo ko fa ngir rëbb walla nga yar ko fa ngir sàmm jur gi am na beneen riwaay boo xam ne man maniqtanaa kalban laysa bi kalbi saydin wala machiya wala ard fa inoo yanxus min ajrihi qiraataani kulla yawmin ku moom ab xaj te rëbb taxut sàmm jur gi taxut sàmm suuf si taxut maanaam kër gi mu ne xaaj boobe dana wàññ say tuyaab ba bët bu set lu toll ni jabalu Uhud waaw bu nekk ko amul tuyaab moom fu mu jëm xanaa moo koy yokk bàkkaar yu toll ni jabalu Uhud <laughs> seetitit loolu la mag ñi daan wax mafhum mafhum bu mam mamtuux bu ñëwee ñu déggee ci loolu waa ji dafa yara ab xaj rëbb taxut sàmm taxut te amuti tuyaaba nu muy def mu ne kon bët bu set xaj bi yokkal ko ci bàkkaar lu toll ni jabal uhud <laughs> seetit sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni woon rahmatan lana moom la yàlla woon yàlla yónni woon li yuxrijana min adulumaat njaxas yéeg la nim yëpp mu leeral ko yépp cax wu àdduna am mu firil ñu cax wa fu ñu jëmee ila nuur ila nuur ma ñëw ci buntub ñetti téeméer ak juróom-ñaar karahiyatu taaliqil jaras fi l wa xayri min ad wa karahiyatu istihaabil kalbi wal jaras fi safar bunt bi li ci yonent bi di aaye mooy wëyëng wëyëng mooy liñ daan takkal aw fas ci ginnaaw gi buy daw ngay dégg muy koyoŋ koyoŋi waaw wala ñu takkal ko gileem buy dox mu yëngatu wala bàyyi ma juñ ko mën a takkal bunt bii day tere di tukki ànd ak xaj wala ànd ak lu def wayang ca tukki ba wayang xeeti cloche la boo xam ne bii dafa tuuti di nekk ci ginnaaw fas yi ko daan def ci ginnaaw fas yi teg ko def ko ca teg ga wala ko ca baat bi buy daw mu ñoom ñëpp ñu yëngatoondoo loolu loolu la yont bi di tere ci bi bii Abu Hurayrata moo ko ci li mu ne yonent ba nee na laa tasxab laa tasxabul malaaikatu rufqa fiiha kalbun aw jaras mu ne yonent ba nee na malaaka yi du ñu gunge kuy tukki ànd ak ku ànd ku yor xaj walla ñu ànd ku ànd ak ku yor ay wayang di kolos waaw da bu yututi yooyu ne ci ginnaaw fas yi nit ñi dañ ko daan yor rek day sànni di ko dawal ak def yëf mu ne ku ku ànd ku yor yooyu di tukki yëgal ne menn malaaka àndut ak yow yow dong yaay dem loola fa dal rek xamal ne loolu waa an wa anhu jëlewaat nañ ci abu hurairata bu ne yonente ba nee na aljarasu min mazamir cheytaan rawahu abu daawud bi isnaadin saxiix ala charti muslim mu ne yonente ba nee na wayaŋ ci toxoroy seytaane yi la bokk moo tax ñëw ci jàkka jumaa mu am ko daf tiital ñëw ci jàkka jumaa mu am ko montor bi am ko tabaarakallah daf lay tiital waaw lay tiit lool ndax seetaanee ko moom yëfi seetaan nag la tu Tuubaa waxoon rek ku bëgg mu ci ci moom bàyyil yëfam waaw waa ji doon wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim di ko baamtu rek te ko wel ko lool def ko ba mu ñëw ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa mucc ci moom mu ne ko bàyyil yëfam ku bàyyi yëfam mu bàyyi la waaye li fekk yaa ngi yor yëfam dalay topp mu ñëw ci beneen bunt bunt boobu ñaari addis yooyu la ci indi moom imaam An-Nawawi rahimahullah ñaari addis yëpp Abu Hurayra taa ko nekk ci li sahaaba boobu nga xam ne nekk na addis yu baree baree bari radiyallahu anhu li ko waral mooy dafa taqoo woon ak alayhi salaatu salaam du def commerce du dem tool ndax nee na commerce ak tool yëpp tabarkàlla ànd ak yonent bee ko gënal ànd ba nag tax mu ne ko yaa rasulallah mu ne ko làbbayk mu ne ko kiis laa bëgg kiis laa bëgg loo koy doyee mu ne lu génn sa gémmiñ ji rek ma mokkal ko mu ne ko jege ma daal ko koy fàggul moo tax mu bari ay hadis rajallahu anhu baabu karahati rukub rukubil jallala wa hiya al ba'iru aw an naaqa allati fa in akalat ilfan taaba laxmuha zalatil karaha bunt bii day jàngale war jàllaala jallaala ci réewi arab ya mooy gëléem gu góor mbaa gu jigéen goo xam ne sobe lay dunde waaw gëléem gu góor mbaa gu jigéen goo xam ne sobe lay dunde bu fekkee bàyyi na sobe sa di lekk wuddu maanaam ngooñ ak ñax ak yooyu kon tere ga amatut sibel ga amatut waaw sibel ga amatut danañ ko firee ganaar it jàllaa ganaar goo xam ne sobe rek lay dunde waaw danañ ko ko firee ñoom Cheikh Abdul Hamd Diouf tabarakallahu ñoom gëstu woon nañu yooyu lool ba def ci lu am solo Ibnu Omar nee naha rasulullahi anil jallala fil ibil an yurkaba aleyha nee na képp koo xam ne kii am nga gëléem goo xam ne jàllaala la yonent bi tere na ko ko war gëléem goo xam ne sobe rek lay dunde waaw najaasa rek lay dunde tabarakallah bunt boobu benn addis boobu la ci imaam Nawawi indi Abu Daawud moo ko nettali bi isnaadin saxiix ñu tere ci war gëléem goo xam ne gi sobe rek lay dunde wala yu mel ni ñoom tey dunde sobe rek mu ñëw ci beneen bunt wala ci beneen waa beneen bunt ci yeneen tere mooy taf tafli ci jàkk taf <laughs> tafli ci jàkk waaye daf yaa teg digle ku tafli ko gis tafli ci jàkk na ko dindi ak it képp gis ci jàkka salte bu war a dañ na ko dindi te salte ku ne xam ne daa war a dañ bunte ngi nii ba am solo mooy 309 an anasin radiallahu anhu anna rasulullahi qaala al busaaqu fi l masjidi xatia wa kafaratuha dafnuha yonent bi na taf la ci jàkka bàkkaar la taf xaaxtindiku ne bàcc ci jàkka ji wala ñandee ko fépp ci jàkk ji nee na xatu yi ak loolu bàkkaar la bu ko kenn def xam naa bàkkaar la waaye lu salte la léeg nga dégg ci biir jàkk ci kuy xaaxte ndiku am kuy ñandeeku te kuy ñandeeku ne xam nañ ne baqate mooy génn ci yaa ngi ci biir jàkk ji xaax ñandeeku baqata ñëw ba ci mutu jàgg ci fëgg say dàll ah la tàpp tàppal dàll yi xëddamiku yooyu dafa bokkul ci teggini jàkka moo tax tafli ci jàkka xatia bàkkaar la ah waaw liy far bàkkaar bi nag def nuhaa mooy suul ko suul ko ah waaw soo déggee addis bi nag dangay ngay daal di yëg ne ndekke jàkka ja dafa amutoon perong suuf rekk la gannuus kon boo ci taflee danga koy suul bu munta ñàkk looloo waral biir jàkka yi mag ñi di ci dugal ay taflikaay taflikaay ku munta ñàkk tafli nga tafli ca waaye xaaxtandiku ba ci boppam son bi ñëpp di ko dégg gënut xaddami ci biir jàkk ñépp di ko dégg gënut waaw waaye daal bu munta ñàkk bu munta ñàkk ba nga xam ne mënu ñàkk a tafli mën ngaa tafli te kenn du dégg son nee na nag kafaaratuha def na mooy nga suul ko jàkk ji kon boo dégg ñu ne suul ko mooy melut ni suñ jàkk yi nga xam ne day am karol dañ koy karole def ciy tappi kon booy suul nooy def boo amul taflikaay googu doo mën a suul loola ci ngay déggee looloo tax saxaaba yi ku daal ñëw jàkk ji doo summi say dàll da koy duggaale waaw dañ koy duggaale daanañ ko julliwaale sax nag ndax jàkk ji booba amutoon perong waaye fi ne dugal ci jàkk yonent ba nga bëgg faa dugal jàkk dàll sa xel sax du la ko may sa sax du ko may kon loola moo indi woon jullee jàkk jullee dàll yonent bi wax ne ku dugg ci yéen jàkk ji na xool ay dàllam bu amul sobe na ko duggaale na ko julliwaale waaw waaye bu amee sobe nag ah la loolu mooy waral tere yooyu ñu ko ci tere kon taf li ci jàkka yonente ba nee na xati a la lay far bàkkaar ba nag mooy nga suul tafli da rawatina bu dee taflitu jàmbur wala xaaxtandiku jàmbur wala ñandeeku jàmbur walla morsowu këyit wala xolliti caaf yooyu nga xam ne ndaw ko ndaay tabarkala léeg la ñu dugal ci jàkka yi mu nga loolu loolu borom téere bu loolu la wax wal muraadu bi daf niha ida kaana al masjidu turaban aw ramlan wa nahwi fa yuwaariha taxta turaabi waaw mu ngoog moo tax abul muhaasin aruya arubaani fi kitaabil fi kitaabi al bahr nee na al muraadu bi def niha ixraajuha min al masjid amma isa kaana al masjidu muballatan aw mujassasa fa dal fa fa dalakaha alayhi bi madaasihi aw bi xayri kama yafaluhu kathiru min aljuhaal fa laysa dalika bi dafnin bal ziyaada fi lxatia wa takthirun lil xatari fi lmasjid nee na borom téere boobu nga xam ne mooy albaxar doon wax ba ñëw ci jàkka mu ne boo déggee ñu naan suul mooy génne taf di jàkka ja génn ñandi xat yi ñandi xat yi jàkka ja baqate yi mu ne bu dee jàkka joo xam ne dañ koo perong wala ñu karole ko nee na nga bomb ko ca far nga ko gën a yaatal far nga gën a taqal jàkka ja nee na ñu baree bari ci ñi xamut léeg-léeg noonu la ñuy def defe ne mooy suul ga waaye loolu da koy gën a yaatal ci soo ko gën a yaatal gën ngaa taqal jàkka ja kon gën ngaa bëri bàkkaar kon noo koy def mooy wutal loo ko fompe yére musuwaar mbaa nga wut ndox moo ko raxase te yi ñu yëg ne daf la ci jàkk silvise wut waaw wa an aïcha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raa fi jidaaril qiblati muxaatan aw buzaaqan aw nuxaama fa xakkahu muttafaqun alayhi alayhi salaatu salaam dañ ko mas a liqaamal ba muy bëgg a julli mu gis fi xibla ji baqate yu ñu fa def wala taflit nee na wala ñandaxit fa xàkkahum nee na mu daal di jël dara di ko ca bomb di ko ca bomb ba mu set mu door a kàbbar waaw yii it li ëpp ci imaam yi dañ ko dul dénoncé waaw lu waay def ci jàkk ji imaam danaan cell rek yonte bi masaan jàkk ji loolu noonu da koy dénoncé da cay wax waaw imaam Lamine Diop <laughs> jàkkay amoo waaw noonu la ñuy def boo gisee ci jàkk yi loolu da ngay woo ko def waxtaan ak moom waaw bu ko defetee nga waxtaan ak moom bu ko defetee nga wax ko nit ñëpp waaye nit ñi déedéet lu waay def rek parce que léeg-léeg bu fekkee jàkk ji dafa am te ilimaanu jàkk ji président jàkk jee ko yilif wala yi moo ko jox li muy am ñoom seen yooyu da koy yemloo da koy yemloo fi mu yem ak fu mu dul yem loolu daal wax dëgg yàlla sibili civilisé gi na ci lislaam weesu na loolu boo gisee jàkk ji lu ñuy tere wax ko moo tax anas nee na yonente ba nee na salaa sallam wax ne inna haasi l masajid laa taslahu li cheyin min hada al bawli wala al qadr innama hiya li dicri llahi taala wa qiraati al quran aw kama xaala rasulullahi rawahu muslim mooy dañu toog benn bis mook saxaaba ya jenn waay ju xamul problème jàkk xamul àtte yaak ñoom seen yooyu mu ñëw rek génne sawukaayam taxaw rek di saw ci miiru jàkk ji saxaaba ya gàddu seen yet fas ko yéenee rey ndax daf leen pour ñoom daf leen yàpp yonent bi ne toog leen ñu toog mu bàyyi ko ba mu saw ba àggal mu ne wut leen siwo ngeen def ci ndox dem sotti ko ca saw ma ñu wut siwo dem sotti ko ca saw ma mu laab mu woo waaje waaj ñëw mu ne ko inna haadihi al masajid laa taslux li cheyin min haada al bawli wala lil mu ne ko sunu jàkk yéeg jumaa yi waree su cee saw ndax du barabu sawukaay waree su ko taqal ndax du mbëbës jàkka yi li lekk ko tax a jóg mooy zikrullahi taala wa qiraatul quran zikr ak jàngal quran képp moo tax jàkka yi jóg tabarakallah bi kulli maanal kalimatayni li zikr ëmb lépp ak li jàngal quran ëmb lépp lépp la jàkk ëmb lépp la jàkk ëmb kon mbokk yi beneen bind ngoog di suñ juróomeelu bind ci Riyadou Salihine 2014 tabarakallahu euh, nekk ci biir téere yi nga xam ne moom la yonente ba tere woon alxuraan tere woon ko imaam na Nawawi dajaleel ñu ko jërë jëf ak si nañ te yëkkatee jataay bi ci kanam tuuti ñëweel koog li ci tege yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu yàlla na yàlla aar leen aar nu nangul na sunu koor nangul leen seen koor yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan doon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu il islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa